mooy sur le plan social dangay ngay def ce qu'on appelle la déconstruction mentale déconstruction mentale à travers des activités peut-être mën nga sensibiliser xamal leen ne mhm. réew mi kat mhm. mën nañ fi toog mën nañ fi tekki l'espoir est permis man dama bokk ci ñu yoroon an ñi nga xam ne ñoo yoroon nattuwaay Afrique de l'Ouest et du centre personnellement man dama bokk ci ñi nga xam ne ñooy def la documentation et la recherche des migrants mais espoir bi nga xam ne moom la jeunes yi amoon ñàkkoon ko ñu ngi koy tàmbali di retrouver waat mais n'empêche que y a des cas yoo xam ne dañ ko war a prendre au sérieux balaa muy ëpp loxo mooy lan sensibiliser déconstruire wax leen ah suñu réew kat bu ngeen fi toogee am ngeen lii am ngeen lee gis ngeen président bi mi ngi teg tel jëye tel jëye il faut communiquer deuxièmement mooy su le plan économique ñun à travers le projet et le président Diomaye Faye yan solution lañ ci indi je suis mouvement je mouvement des cadres programme bi biñ koy xaatim kuréel la ko xaatim am na commission bi ñu tuddee affaires étrangères et patrio et panafricanisme moom moo féetewoo lépp loo xam ne moo jëm ci wàll migration man falaa mm-hmm. solution yi ñu ci indi d' abord sur le plan économique mm-hmm. dañu ne ñun dañuy changer suñu économie trajectoire économique bi nga xam ne moom lañ amoon ba jeune bi du ma am a am xëy mm-hmm. dañ koy soppi nu koy soppee mooy dañuy amale ce qu'on appelle une économie endogène. économie endogène Birahim mooy économie boo xam ne maintenant day reposer wu sur les facteurs externes du pays interne du pays. différence bi nga xam ne moom mooy les facteurs externes. exogènes yi ñu amoon auparavant. mooy c'était dans l'importation moo taxoon suñu taux de croissance saa bu mos a ñëw boo seetloo. ce sera des taux de ce maam day doon euh, un taux de croissance extraverti. Hmm. yoo xam ne. secteurs yi koy absorbé Sénégal moomu leen. Hmm. Sénégalais yi liggéeyuñu fa. par hmm. exemple hmm? ñun ñu ne dañoo indi une politique économique endogène reposée sur quoi sur la transformation et sur l'industrialisation. ci biir réew mi. ci biir réew mi mooy lan la transformation des produits locaux Sénégal importé na mois de janvier bi ñu génn importé nañ lu toll ci six cent six milliards ci wàllum xaalis mm-hmm. valeur. importé nañ en mois de février 479 milliards année 2023 importé nañu lu toll ci maanaam 2 virgule 3 millions de tonnes de riz te moo ne am nañu fu nu bàyyee <laughs> année 2023 importé nañ lu toll ci valeur vingt 20 milliards ci wàllu meew te moo ne am nañ ay sàmmkat am nañ espace bu ñu mën def suñu sàmm installé moo tax ñu ne ñun transformation bi ñu indi mooy tout ce qui est les produits nga xam ni auparavant dañ daan exporter des produits bruts importer des produits finis. Mhm. mango nga daan del exporter ko ñu yónnee la jus jën nga daan del exporter ko ñu yónnee la thon. Oh. ñu ne ñun désormais dañ koy industrialiser ba pare transformer ko. Mhm. samp ay pôle de transformation yoo xam dinañu mën a tax. Mhm. xale yi mën a liggéey ci environnement boobu. loolu nag nuñ koy defee. mooy le président Diomaye Faye le président Ousmane Sonko à travers le projet bi nga xam ne moom la ñu indi dañu ne dañuy samp huit pole économiques. quels sont ces pôles économiques pôle économique bi dañoo diviser Sénégal en huit zones benn bi mooy Sine Saloum Bawol Kayoor Waalo Ferlo ak Dakar xam tax parce que dañoo teel a comprendre ñun dañoo teel a comprendre nekk l'immigration irrégulière dite clandestine ce n'est que la continuité de l'exode rural mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon tey ci taax yi màngaan wuti ci ci ci kaw gi ñëw ci taax yi. ñoo ñoo ànd ak waa taax génn réew mi. ñu ne léegi luy luy solution bi mooy dañu am une solution structurelle. Euh, ma taxawal ci àll bi kaw gi. waaw ñëw ci taax te dund gi ñëwul da ngay rusa delluwaat te àll ba. mu ngoog léegi nag rus boobu tax ngay hmm. génn. léegi nag ñun ñu ne dañuy samp pôle yooyu pour camper les jeunes économiquement dans les terroirs nga xam ne man dootuma am soxlawu ñëw Dakar xamul ma fi indi peut-être bu ma waree. importé wala dara ma ñëw port loolu moom fii indi waaye bu jëlee ci wàllu mbay damay des fa ma toog fa ma dëkk ma toog fa bay waaye su boobaa ñu ne ñun dañ koy accompagner avec la formation technique et professionnelle reposée sur des métiers et des compétences techniques et non sur l'assimilation à la culture occidentale mooy dañuy indi xam-xam ak xarala yoo xam ne mooy accompagner. Euh, potentiel économique bi nga xam ne moo nekk ci zone boobu. mais euh, Cheikh Amadou Bamba. Mhm. est-ce que parce que loolu patience la laaj aussi. lu ñu baral baral baral baral.